Assalamualaikum warahmatullah. wa rahmatullah sëñ bi ñi ngi lay ziar bax di la jox sa way di indi nuyo monsieur le ministre birim di dom ci kër gi di talibé ci kër gi di jarbaat ci kër gi ndax bi mi nuyo léegi yow yang ko koy wax né ay magam wala ay nijaayam ñepp say wolere lañ ndax ku ci nek xamna ñaari kër yi muy kër sëñ Ahmadou Baro bu bu ties ak digënté mak si Ahmadou Bamba khadim rasoul kon japp na ne fi lepp lu fi nit di don rek birum sulay mi don nako fi biñuy waxtan ci jamono yele jall wax na mako ne auto bu bes bu ma massa am suma koy roode Touba lay ñew julli ci fajar après ma wat kon digënté mak Touba digënté bu yàgg la. cadre liggéey tamit indi ko fi muy ku ci nek xamna sumbu yu reuy yi nga xamanteni ni Senelec ak ministre de énergie sumbu nañ ko fi ci Touba muy centre bobu ñu tabaxoon fele ci Nindi tay ñuko doon jox tour bi sa wajuro baxo muy Cheikh Mamadou Fadal. tey loolu moo ko fi indi woon bi mu paree mu ne dina ñëw siyaare si xalif général de Mouride waajuram sàkku si moom ñaan ànd ak directeur Senelec bi ak mbooleem membre gouvernement bi yëpp wala ministre yi nga xamante ni wala directeur généraux yi nga xam ne ñoo aju ci ministère am ak gouverneur ak sous-préfet ak mbooleem ñu bokk ci délégation bi yëpp xam naa moom la ñu jox kàddu gu mu eggale li ci des di sàkku ñaan bu baax a baax nag jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëriñ bi Mbàkke ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñi ngi ñëw fii tey ànd ak kilifa yi nga xam ni ci ministère bi ñu ñu dénk ñoom ñoo bokk ak ñun liggéey bi te li ñu fi indi woon tey ñoom ñu am tamit euh, liggéey bu mucc ay buñ ci def maa ngi tudd directeur général Sénélec Pape Toby Gaye ak ñëpp ñi ma àndal ci liggéey bi di ko def maa ngi tuddit gouverneur moom préfet ak sous-préfet waaye maa ngi tudd directeur général Azer waaye maa tudd député yi nga xam monsieur le maire monsieur le président du conseil départemental yi nga xam ñoo bokk ànd ñëw fii pour di ziyaare si yittey tay bi nag dafa nekk ni dañoo jublu magalutuba. muy bis bi nga xam ni lu ëpp juróomi million wu nit danañ daje ci dëkk bi lu ci seen yittey màggal bisu maam borom Touba te soxla yi ndox courant wér-gu-yaram ak sécurité doon loo xam ni état daf ci am jéego yu rëy yu mu ci war a dox ñu nag li féete ci sunu pegg bi mooy wàllu courant bi ñu ñëwoon tey ngir fekke ubbite post boobu ñu def te yitteem li muy dox mooy yokk ni courant dugge ci réew mi ci dëkk bi ba képp ku fi ñëw ci màggal gi nga mën cee jot mais taalibe yi bu ñu ñibbee ñi dëkk biir Touba mën koo jëfandikoo ak dëkk yi mu wër poste bi nag benn la ci yeneen yoo xam ni day dox ngir wuyu ci yittewu gouvernement bi yi nga xam ni euh, premier ministre Ousmane Sonko moo ko jiite waaye ci bëgg-bëggu président de la république bi nga xam ne lim ñu sant mooy nangeen fexe ci liggéey bi ba bépp sénégalais ak fu mu mënti nekk ci biir suufu Sénégal na jot ci courant ci anam bi mu ware waaye buñ ko nee fayal la muy fay na doon loo xam ne lii poosam walla gafakaam dina ko mën a àttan mooy accès universel à un coût abordable lii nag ou de def poste boobu poste bi ñi ngi ko duppee Cheikh Mouhamadul Fadal te tur bi tànneef gi Qui nañ fi mu jóge ci Serigne Mountakha Mbacké di xalif général kullu murit moo duppee tur boobu ñëpp nangul ko it di ñaan barke bi ci war am yéene gi ci war am te gëm nañu ni loolu dana am dem nañ ca moom wax nañ ko mébétu président de la république ci wàll wi wax nañ ko mébétu premier ministre ca wàll wi yëkkati na ay ñaan fa ñu toog yëg nañu nangu ñaan gi fa ñu toog yëg nañu nangu ñaan gi li ñu waroon bu ñu fa jógee tamit ñëw ziar si sëriñ Bas mii nekkul ni dañuy ñëw ngir sàkkuwaat ñaan ndax sëñ Muntaxa ku mu ñaanal feneen foo wuti ñaan yaa ngay juum dañoo ñëw pour ziar la dañoo ñëw pour seet si dañoo ñëw pour ñaan si bis bi ñu jëm nii yàlla na ko yàlla may ñu yegg ci ak jàmm ak salaam taalibe yi fii ñëw yépp lu ñuy dox képp ku fi ñëw yàlla na say soxla àdduna ak alaaxira faju yàlla na say yitte faju yàlla defal ñu jàmm ci réew mi sëriñ bi li kilifa gu mag gi teg ci sa loxo yàlla na yàlla may la mbaggu yaatu lool ba nga àttan ko di ko doxal ci jàmm ak salaam ci njariñu bépp taalibe njariñu senegal lii moo nekkoon suñuy tànk ñëw na ñëw ziar si la nuyu si la présenté la ñi ñu àndal ci liggéey bi ba liy sotti sàkku jàppale ci ñoom ngir lépp yomb ba yeneen ak yeneen i projet yi nga xam ne bii gouvernement moom la am mën a sotti jàmm ak salaam muy ci Touba wala muy ci beneen dëkk ci réew mi lu ñu guddal ndax lii moo nekkoon suñu tànk te xam nañu ñi taxaw pour ziar si pour nuyoo si pour sàkku si ñaan bari na lool sëriñ bi lii moo nekkoon suñu tànk ñu ngi sant yàlla bu baax bu ñu mayee ñu mën koo jooxe dox ko ci jàmm ak salaam asalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf. salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ministre énergie di Serigne Birame Souleye Diop ndax bu ngeen gisee ma waxee ko noonu mooy li nga doon ci diine ji moo tax. ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo. di ko teg ci sa loxo ak mboolem délégation bi nga àndal bépp tàmbalee ci gouverneur de la région de Diourbel ak préfet bu Mbacké ak su préfet bu Ndaam ba si ci Serigne Abdoul Ahad Ka mu jiite commune waa nga xam moo leen dalal ak mboolem directeurs yi nga àndal yëpp muy directeur Senelec ak directeur ASER ak suñu doom ji nga àndal di Serigne Cheikh Thioro nga xam ne moo la nekkee ci dëkk bi ci wàllu politique di nuyu itam suñ jeneen doom Serigne Cheikh Abdou Mbacké Baara Duli ak si Mourtala ñoo ñooñu ñëpp du samay doom ak mboolem ñu ngi àndal ñëpp daal di yóbbanteem nuyoo ci sa kilifa yi yebal di président de la république république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko. di leen yóbbante cant ak ngërëm ci seen yitte ji ñu jëme ci dëkk bi ndax si sëñ Abdou Lahad Mbacké daa wax ne du ma gërëm ku ma defalul dara ndax bi ngeen agsee léegi xat na ba séentu fi jëf xajagu fi waaye nag yàlla moom balaa fay jëf day day fay yéene ba noppi niyatul mu'mini ablahu min amalihi ndax xam nañ ne fi ngeen agsee fekk ngeen àdduna si jamono ju xat fekk réew mi si jamono ju xat waaye ak yéeg ak itte moom lu ko nit am rek wàccoon ak yow gis nañ nag bi ngeen toogee ba ndege ni réew mi yëpp jëmi ngeen ci sa yitte waaye nag Touba jàpp naa ne seen yitte ji moo ci jiitu loolu nag yëg nañ ko bu baax sëriñ bi xame na ko noonu te seereel si mu leen seere wax na ko keroog bi fi euh, président ñëwee moo ko wax ci làmmiñam maamu yàlla ñaar yoon sax mu ne ma rafet naa njortu ci ñoom de ndax xam naa ne ay liggéeykat lañ te ay julit dëgg lañ loolu nag ki fi nekk Sëriñ Tuubaa ndax moom xam ngeen ne amul dara lu ko tënk ci àdduna luy tax muy seereel nit lu mu xamul ci moom wa ma shahidna illa bi ma alim na kon nag wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu kon yéene ji nga xam ne wane ngeen ko ak li diggante bi di xat-xat loolu sëriñ bi yéeg na ko yitte ji ngeen jëmee ci bokki taali bi dëkk bi it sëriñ bi yëg na ko kon li muy def mooy ñaanal leen sumb wu wi nga xam ne yàlla teg na ko ci seen loxo ci réew mi ak yaakaari réew mi yëpp def ko te suñ boroom wax na duma duma tas njortul ab jàmm ana inda zanni abdi faliyazunna bi ma shaa hadisul qudsi la kon nag ngeen rafet njort te gën a góor góorlu te xam ne yàlla mi leen fi teg ngir jaarloo ko ci doomu aadama yi yaakaar rek tax ñu teg leen fi kon nag lu ngeen góorgóorlu rek doyut lu ngeen góor rek doyut ndax yaakaar ji dafa dafa dafa dafa bari bopp doonte nag xam nañ ne fi jamono toll moo tax lu ngeen defuti te dañuy xam ne jamono fa toll te da ngeen door ak si waaye ngeen seen yéene feeñal seen jëf kon ñu ngi leen di ñaaral ci barkeb Serigne ak daraja bi fi yàlla defal leen ndam ndax bu ngeen amé ndam moy ndamul Sénégal gep ndax yàlla mo mo xam li bi def ta du def lu gënu tëm asha an takru shay'an huwa khayrun lakum wa asha an tuhibu shay'an huwa sharrun lakum asha an takru shay'an wa yaj'al fi fii kaseeran kasiran kon ñu ngi leen di nuyu bax di la nuyu yow itam di la sant bu baax di la gërëm ndax yàlla def na gise bi bëriwut waaye sa say nijaay min naa leen bu baax samay kóllëre leen di nit ñu baax a baax ñoo xam ne seen digg ak yoonu mu kóllëre gu dëgër moo dox ci diggante bi kon buñ la gisee bët boobu dañ lay xoole ak suñ doom yi nga xam ne ñoom nga àndal te ñu seere ci yow kon ñu leen ñaan màggal gi ndax xam nañ courant daanaka moom dañ ndox ak yëpp sax dañ koy waaye courant mooy ndey ji ndax bu courant amut ndox du mën a am te dëkk bi xam ngeen ne li muy jël ci courant dafa bari ni mu yokkoo dafa métti ndax loo xam ne àgg na ci quatre cent mille compteurs bari na te deux mille deux booba Touba li muy lakk ci courant matutoon vingt mégawatts te fi mu toll nii àgg na ci daanaka cent mégawatts te dëkk bi amagul courant kon ni mu yokkoo dafa métti ci loo xam ne ñaar fukki at la kon dëkk bi loolu tam li ko indi mooy li may faral di wax rek. li ko indi mooy dëkk bi ni mu doon manqué li li li ñu ci doon def ci courant muy nuur lu bari dëkk bi da ko jiitu lu bari moo tax at yi yëpp def nañ ci lu bari bari waaye lu ñu def rek bu déwénee gis mu yokkaat loolu waa Saint-Louis xam nañ ci dara kon loolu yaakaar naa ne li ngeen doon indigré tey te tudde ko Cheikh Mahamadou mi nga xam ne màggal gii bu ci nit ñi jariñoo ginnaaw yàlla moo tax ndax sëriñ bi da ko woote woon ci njaareem ne fu fu mu fekk waaye na ko fa def waaye moo ko fi fii ci dëkk bi kon nag bu ngeen ko delloo njukkal bi boobu euh, post boobu loolu jëf ju rafet la tam jóge ci sëriñ bi yéen itam ngeen def ko kon ñu leen ñaanal bu baax ci mboolem li ngeen somb ci Sénégal rek yàlla defal leen ci nam defal leen ci barke te indi jàmm ci réew mi akuk dal ndax ñaar yooyu mooy li ëpp solo ndax jàmm ak ak ak ak akuk dal bu amut nit ñi duñ tale liggéey duñ tale jàmm yàlla فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف كون يالنا يال ديف جام تي ريمي بونوبي jàmm خولي با mi نيك بن ني نا سي نغور ñëpp ني نا سي كوجي ci nguur ño xamne ne seen hëdëf ben la moy Sénégal jag kon lolu bu ko ñëpp déggé non rek xamne lu ci ne ay xalaatin ñu wukul yu bokkul la waye li leen boole moy Sénégal moy réew mi kon lolu tam ndax dégg nañ ñu bari seeral la ko sa xol bu woyof sa xol bu rafet loolu am na solo loolu nag moom lu ci waay def rek sa bopp nga koy defal ndax yàlla moom wala yahiqul makru shay'un illa bi ahlihi jeexal foofu kàddu yi ndax xam naa ne jotaay bi yàgg na di ñaan ñu àgg ci jàmm te génn ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh